बुझाने कॉम benn autorité bu waaye bu ñuy jàppalee gis ñu ko pour Lat Diop loolu fa amul leer ci kanamu xale yi ñu dégg ko. waaw loolu lañ si sawar pour wax si sax ñun bu ñu amee combat man mii ba ma dalee bërëb ba léegi benn maire mosuma jàppale. sama baat ci kaw. waaw wax ko ci kaw benn maire bu mos a taxaw ne jàppale naa fi sa baalo comme amul. amul de. waaw benn Lat Diop laa mos a bëri mu jàppale may ma xaalis. waaw waaw. Lat yow mention spéciale. loo dund doyul. barki Serigne Bamba. yow ndaw ñee la bëgg. ñun ñoo la bëgg. bu ragal jeunesse bi la bëgg suñu maire yi bu ñu amee combat dañuy jàppale seen bureau yi ba bëgg a dee ay demande lañ lay dañ lay renvoyé ba nga sonn dañ ba nga sonn dañu nekk ñu si yooyu ñun am na ah. yeneen ñu tal billaay wala mais yow jàmm rek saa bu ñu amee combat bu ñu la wooyee dañ lay gis géejawaay lu la neex moo fi am lu la neexul du fi am géejawaay lu lu ñu la waxoon rek lu mu metti metti sa loxo lay mujjee yaa koy téye waaw rek luñu loolu sax waaw jeunes yi la faral yaay dimbali jeunes yi lat jeunes